dama bëgg xamal la benn mbir la ma def ba ma porter plainte je l'ai fait pour ma famille mes épouses que je respecte énormément mes enfants surtout et mes amis mais mun na dafa metti nga def conférence de presse tontu Ousmane Sonko xëy suba parce que jigéen ñi am na ñoo xam ne Pastef lañu bokk ñu bind PCA ONFP bu bees bi bàyyil jànk jeeg jeeg yi xale bu ndaw ak ñëpp lay tëddee te du sol préservatif commentaire yi ñu bind ne kenn ki ne dafa sida ba xuréet bi affaire man new ma sax Facebook Facebook bi ma nekk su ma rakk bi nekk France moom ma ko ubbil xawma ma bi mosuma ko sax xool parce que intéressé sama doom di jàngi école suñu doom ay mag lañu suñu doom ay mag lañu léegi du ñu ay xale secondaire la nekk ak ay xaritam ñu ànd mu gis affaire bi elle a tiqué capturé ko envoyé ma ko boobu j'étais à Paris ba nekk France mu envoyé ma ko mu ne papa dégg naa da nga sida mais mun a j'étais abattu et ça m'a fait très mal pour lu ñu def sama doom bu jigéen ma jàpp ne bu ñu defee bu ñu demee ba politique parce que man mënuñu ma xoqatal mënuñu ma menacer parce que man góor yàlla laa nag ñu nangu ko ñu bañ ko wax dëgg yàlla si ndaanaan yi nag laa bokk te ku ma yab da nga ma fekk may nelaw barki Cheikhul Khadim billahi wal kitaabi et ça m'a fait très mal Maïmouna maa fi à pleurer yónnee ma capture ak xas yu ñu ma ci saaga wax ju ñaaw yu ñu ma si def et ça m'a fait très mal je suis allé à l'hôpital américain de Paris